à la loi tey bokk na ci li nga xamante ne peut-être booy faral di wax loolu day mujjee këpp sa kaw euh, ci li ñeel wàllub yoon ndax sénégalais lu ci ëpp ñoom bëgguñu euh, ku leen i euh, buntu xatal wala koo xamante ne dafa leen i xañ seen liberté. yàlla suñu borom moo jëkkul nangu ñuy xañ doomi aadama liberté ndax ñun suñu borom dafa ñoo bind ba pare bàyyi ñëw suñu liberté bopp ba pare encadré suñu liberté. tegal ñu ay voies et moyens yi tax ñuy moytu li tax ñuy ñàkk suñuy liberté kon bu ñuy wax démocratie ci yàlla suñu borom la njëkki bu ñuy wax droit de l'homme ci suñu borom la njëkki xañ nit ki liberté mooy privé ay droit am nous sommes dans une république nous ne sommes pas dans une monarchie boo demee Guinée Conakry armée yi ñoo fay commandé boo demee Mali armée yi ñoo fay commandé soo demee Burkina armes yi ñoo fay commandé boo demee Niger armes yi ñoo fay commandé liberté d' expression amu fa c' la dictature. Mm-hmm. boo demee au Maroc royaume la. Mm-hmm. buur bi mooy joxe ndigalam et tant d' autres pays arabes bu ñuy jaawale la dictature des armes bu ñu jaawale la monarchie bu ko andi fii créer benn dictature ba mu c'est une dictature psychologique avec la façon dont on interpelle les gens. interpellation boo xam ne yow wax nga ko président Lamine Guèye jógewul ci procureur de la république amul plainte bu ñu yóndee kenn si ñi nga xam ñoom lañ jotoon convoqué ñan la soit les commissaires dañuy interpeller direct wala la sûreté nationale ñu interpeller leen direct ñu interpeller di di dem jëli léegi boo xoolee circuit bi yëpp ak schéma bi yëpp doo ko teg ci république de de droit doo ko teg ci une nation kii respecte son peuple doo ko teg ci démocratie ci lan nga koy teg. yaa ma neex. ci yaa ma ci doole joo xam ne man maa ko féetewoo tey parce que convocation yi am na fu mu jógee. li nga wax. dañ ko war a lëmbal. mais dans un état de droit koo joxoñ ci wàllum justice mu ne du man. war nañ koo lëmbal de. fu mu jógee. koo ne joxoñ mu ne du man. yaa ngi problème ba pare. ñi ñu convoqué yëpp tous les sénégalais la quasi totalité des sénégalais ñoom ñëpp seen xel dafa dem ci kenn le premier ministre. <laughs> li dama wax ko mooy. Mhm. mais bu ñu wax article quatre-vingt dafa protéger le président de la république wala deux cent nangam. Mhm. mais nañ génne ci constitution benn article boo xam ne dafa protéger le premier ministre. amul parce que du institution et je le répète tout le temps ici. Mhm. baa Diakhaté bi ñu ko njëkkee lu ñu wax offense au premier ministre. dañ ko dindi. ñu dindi wat ko ci saasi. Imam Daw pare léegi bu ñu wàccee tey li am ci diggante Bougane diggante Kader exemple sax Bougane nag kii laay jëkk jël rek. Cheikh Yérim Seck mhm, ñoo nduroo même chose. ñoom ñaar ñoo bokk problème. Mhm. ils ont contredit des chiffres. maa ngi gis léegi benn communiqué buy jàll le ministre de l' éducation nationale Moustapha Guirassy nee na félicitation à ce nouveau gouvernement bu bees bii parce que wàññi nañu inscription lycée public nekkatul dix mille francs cinq mille la. c' est archi faux. non depuis daaw loolu. c' est le président Macky Sall moo ko wàññi depuis daaw. lii mooy contredire les chiffres. <laughs> loolu daaw la woon. bañ non daaw la parce que Macky Sall dafa créé woon. ne onze mesures bi muy soo a jël réew mi. ne onze mesures yi laay jël pour soulager situation sénégalais yi. boole ci courant ceeb diwlin suukar. ci njàng mi. muy collège euh, collège primaire euh, lycée et cetera bi ñu waxtaanee si biir ñu ne lycée yi au lieu de inscription dix mille francs léegi inscription cinq mille la depuis daaw le vingt deux avril euh, avril deux mille vingt deux si lañ exécuté loolu mais tey le ministre Moustapha Guirassy mu ngi wax ne pouvoir bi état bu bees bi moom moo wàññi loolu léegi lii mooy weddi leen ñoom parce que dangay wax loo xam ne day dëppook li am. bu fekkee si ne lañ lay convoqué <laughs> liberté d'opinion la ñuy wax nag moom la ñuy touché léegi. Mhm. quand l'opinion appelle la garantie de donner la liberté à la personne mais s'exprimer devient maintenant un danger et ce qui s'est passé avec Yérim ak Bougane mais ba ci Kader c'est une pression internationale le de est devenu maintenant un village planétaire ah koo loola laal koo xañ ak ak yelleefam balaa ngaa tëdd ci laal Nations Unies yëpp mhm. UNESCO yëg ko et cetera et cetera et cetera un premier ministre bu jóg joxe ay chiffres ne dañoo falsifier ay chiffres Sénégal financièrement ñëpp di ko seetaan di ko dégg mais bi mu waxee ba jeexal ku nekk dañ ciy joxe sa appréciation. mais nee leen li ngeen compagnie joxe la.